waa di commencer par massawu di massawu vraiment yaay yi surtout xam naa ni metti na am sa doom te xamoo fu mu nekk di ñaan suñu boroom mu nit leen ba ñu dellu siwaat ak càmm vraiment nouvelle bi moom bañ ko déggee euh, am na lu ñu yëg en tant que jigéen vraiment xam ni ñi nekk ci situation yooyu yaay yi jur seen doom yi euh, vraiment war nañu am lu leen metti di ñaan suñu borom mu ñit leen delloo si leen si jàmm ak salaam ñu ngi leen ñi ma masaw bu baax léegi pour li nga xamante ni état bi war na ko def pour jàppale leen man xam naa si samay waxtaan ñu ñu ñu ñu bokkal liggéey bi ñi nga xam ni ñoo yore domaine boobu que état bi tooguñu rek di xaar ba jéeye am wala ay réer am pour di réagir am na ay euh, disposition yu bari yu ñu jël am na ay brigade fluviale xawma naka laa ko mën a euh, tekkee ci wolof yoo xam ni chaque jour ñu ngi ci géej pour justement éviter suñu xale yi di dem noonu à l'aventure parce que géej moom vraiment dañuy dem mais vraiment xelu kenn du dal donc état bi lépp lu ñu mën pour que euh, pirogue yooyu bañ a dem ñu ngi koy def donc c'est pour dire que état bi toogatuñu rek tooguñu rek di xaar ba problème am ñuy soog a jóg bu ñu nekkul woon ci liggéey bi ñu nekk xëy na tey ay. fukki bato la ñuy dégg yu réer donc alhamdulilah benn lañ ci dégg mais lépp lu ñu mën pour gën ko wàññi ba nga xamante ni dara sax dootu dem euh, xam naa ni incha allah dinañ ci gën a góorgóorlu mais encore une fois état bi toogul rek di xaar ba jéeyaam pour ñu réagir chaque jour buñ ko waxee ak buñ ko waxul buñ ko xamee ak buñ ko xamul y a des brigades yu nekk ci géej gi di empêcher bateau yooyu di dem. à l'aventure waaw xam nga géej nag dafa yaatu euh, brigades yi ñu ngi si frontières yi parce que ku si nekk yow fi nga euh, mënoo jéegi li nga xamante ni loolu mooy sa responsabilité donc brigades yi ñu ngi si géej gi mais tout le temps du ñàkk mu am ay rëcc-rëcc tout le temps du ñàkk mu am ay rëcc-rëcc xam nga tey par exemple am na ay loi am na ay dispositions am na ay policiers. yuy surveiller mbedd bi ak yooyu te du tere dina am ay euh, ay sàcc yu rëcc même si peut-être sàcc yu ci bëri ñu ngi leen ñuy jàpp c'est pour dire que l'État met à disposition euh, vraiment ay lois ay dispositifs ay brigades fluviales et je sais que nos force de défense et de sécurité aussi ñi ngi ci def liggéey bu mucc ay mais du tere mu am ay benn benn yuy rëcc kon tey état bi bu fi nekkul woon du ñu wax ay benn benn bateau ñu ngi wax ay bateau yu bëri kon alhamdulilah ba nga xamante ni waxuñu bato yu bëri mais même benn benn yooyu lépp loo xamante ni war nañ ci gën a góorlu wax nañ ko def pour que ñu gën a mën a éviter li si des nag mooy ñun tolloon nañ fa nekkoon nañu ci seen place man ba ma amee sama bac dara dara dara mënuma woon tere génn dem jànge parce que instant yooyu gisuma woon leneen lu dul loolu pour man am naa sama bac France rek laa war a dem walla Canada pour dem jàngi mais dañ ko jaarale si yoon bu normal donc loolu la invité suñu rakk yi ñu def ko nañ demander visa bu ñu leen mayee ñu jaar si yoon normal mais ñi nga xamante ni nag tey dañoo toll si seen digg ndaw yaakaar ni ñoom seen réussite yëpp mënuñu ko am si dëkk bi lu dul foofu c'est parce que dañoo xamul dañoo xamul man j'ai def naa fukki at ak juróom France xam naa lan moo nekk France léegam ñi ñëw am kayit yu normal ñooy sonn pour mën fa réussir waxtumaak ñi nga xamante ni dañuy jël géej gi pour dem déjà France boo fa demee boo amee kayit sax pour nga am liggéey problème la donc boo amul kayit moo gën a méttati man def naa France fukki at ak juróom gis naa fa ay doomu français ay tubaab yoo xamante ni si mbedd bi lañuy ñuy fanaan léegam ay tubaab yu juddoo foofu nag ñoo mën a nekk di fanaan ci mbedd bi waxtumaak koo xamante ni yow bitim réew nga jógee ñu ci bëri xëy na bu ñu demee ba jimi jamono seen situation dina changer mais bu ñuy soog a dem ñu ci bëri si mbedd bi lañuy fanaan te ñëpp xam nañu seddaay bi nekk France boo ci tolloo nag lu luñ la expliquer lu luñ la wax doo ko comprendre man ba ma ci tolloo bëgg dem France sama frère lu nekk wax na ma ko ne ma toogal Sénégal mais dama ko ne non il faut que ma dem ñoom tamit foofu lañ toll loo leen mën a wax tamit pour ñoom seen réussite yépp foofu rek lañ ko mën a amee. alors que liggéey yi ñuy dem di defi foofu buñ ko defee nangoo def si suñu dëkk bi dinañu am réussite aussi ndax nag naaj bi tiim France mooy tiim Sénégal donc suñu borom fépp la nekk boo gëmee sa bopp rek da nga ciy génn. question boobu nga ma posé nag man moom laa bëgg a posé mi Mimi Touré ancien premier ministre ba mu ci tolloo moom lan la def pour que xale yi tey amoon solution. parce que nag premier ministre du n'importe qui président dafa lay dénk gouvernement pour ngeen liggéey pour wut ay solution pour euh, sénégalais yi donc moom tey bu toogee di laaj euh, yan solution la ñu indi te moom mu yoroon les plus hautes responsabilités de cet état quand même quand même donc c'est pour dire que l'heure n'est pas aux attaques personnelles dañu am suñu ay doom yu xamante ni dañoo disparaître li ñuy def mooy fédéré ñun ñëpp boole ñun ñëpp suñu doole ak suñu xel ak suñuy xalaat pour am ci solution pour gis leen pour retrouver leen que di def ay attaques personnelles wala di def ay attaques contre l'État politique dëgg la mais boo tolloo ci situation yu mel nii da ngay am tamit tuuti euh, compassion on va dire xalaat ñi nga xamante ni waajur yi nga xamante ni doo ñoo ñàkk seen doom mais mënuñu toog rek saa yu. dara amee rek nga bëgg ko jël bëgg ko transformer en non contexte politique xale yi nag encore une fois am na ay programme de d'emploi yu état bi gouvernement bi tëral comme xëyu ndaw yi yi wul problème yëpp mais mi ngi ci yoon bi loo gis nag wàññi boo gis ci benn lay commencé encore une fois programme xëyu ndaw yi ñu ngi ci man ko mel ni man yàggul dara maa ngi ci doon waxtaan ak l'ancien directeur de cabinet du président de la République si ay programme d'emploi de jeunesse agricole yoo xamante ni dafay permettre xale yi duñu sax soxla di jóge seen dëkk pour ñëw ba fii parce que xale yi jaay tey par exemple Nambara Chauffeur Rouge yi ñu ci bëri ci ñoom fi ñu jóge dañu daan bay donc man par exemple tey maa ngi doon xalaat programme bu mel ni état bi jël ay suuf. matériel agricole yi ñu jël ko mettre ko à leur disposition li ñu soxla yëpp ci bay bi ñu jël ko mettre ko à leur disposition et comme ni ñuy fayee par exemple ASP yi chaque mois cent mille francs xale yi mën nañ leen fay cent mille francs par mois ñuy liggéey di bay bay bi xam nañ ko donc le problème d'employabilité ne se pose pas suuf am nañ ko Sénégal on met matériel qu'il faut ñu bay bu weer bi deewee comme ni ñuy fayee ASP yi ñu fay leen par exemple cent mille francs je pense que tey programme bu mel noonu commencé woon naa ci waxtaan ak entourage président bu ñu suñu borom mayee ba ñu mën a toog waxtaan seeg président du ñàkk ñu gën a mën a am ay solution pour suñu ndaw yi foofu la ñu toll xalaat wut ay solution pas di profité si ay situation yu mel nii di jéem a xëcc di jéem a polémiquer di jéem a attaquer di jéem a accuser dañuy ñaanal suñu doom yi suñu rakk yi ñu dellu si ak jàmm si suñuy loxo loolu moom. dama koy rafetlu te loolu la ñuy xaar ci moom c'est-à-dire conseiller xale yi plutôt ko di jéem a politiser situation bi parce que situation bi metti na ba pare soxlawul ñu si yokk leneen xale yi encore une fois je le dis je le répète lii naaj bi nekk Sénégal moo nekk France liggéey yi ngay nangu dem boo dem boo yéegee di ko def boo ko nangoo def fii mën nga ci génn man loolu laa la ñuy conseiller suñu dëkk bi suñu dëkk bi du ma ne lépp matte na de ndax ñun ñëpp fii la ñu dëkk mais am na ci lu bëri loo xam ni état bi mi ngi ciy góorgóorlu et dëkk yi ñu wër dëkk yi ñu wër rek mën na nekk élément de comparaison tey qu'on le dise entre nous ku la ne woon boo xëyee suba nga dem dëkk ci beneen dëkk bu bokk ci dëkk yi ñu wër rek doo dem saa ça veut juste dire que par rapport ak dëkk yi ñu wër. alhamdulilah mais même par rapport ak France yi ñu yaakaar ni foofu la solution nekk France si boppam am na fa ay tubaab yu fay xëy di fanaan ci mbedd bi si sedd bu metti waxtumaat nag ay sénégalais sénégalais yu bëri yuy jël bateau yi bu ñu yeggee balaa jëmi jamono te ça on parle de mois et d'années seen situation di xaw a évoluer di xaw a changer ñu ci bëri lu ci ëpp commencement bi si mbedd bi lañuy fanaan ak seddaay bi nekk France. ñàkk xam moo koy waral donc li may ñaax suñu rakk yi ak suñu doom yi nañ gëm seen bopp fii nañ gëm seen bopp fii te wax dëgg yàlla suñu dëkk bi ñi ngi gis transformation yi ci am xëy na tey sax boo demoon France gis métro te doo ko gis Sénégal tey soxlul ngay dem ba France te ñaan nañu suñu borom liggéey TER bi wër Sénégal yépp c'est pour dire que li ñuy uti France. bu buñ ko nangoo ñeme ñefe fii dañ si réussir ndax man def naa fukki at ak juróom France te ba ma paree dama ñibbisee tey sama moroom yi nekk France ñeewu ma leen ci benn boor ñu ngi sant yàlla bu baax a baax donc gëm sa bopp la gëm sa bopp nag boo gëmee ni yow effort yi nga pare pour def ko France boo ko defee ci sa dëkk bi di nga ci réussir déjà millions yi ñuy jël rek di ko fay pour dem millions yooyu. mënoon mën nañ si xalaat yeneen projet yu la mën a permettre nga am un début de commencement dans ce pays affaire bi nag gëm-gëm la xam naa tolloon naa ci buñ ci tolloo loo leen mën a wax ñoom dem rek la ñu gis mais je sais que ñu bëri on va dire à quatre-vingt pour cent ñi dem ba ñu demee ba yegg rëccu nañ ko mais tant que demuñu ba gisal seen bopp li ngi leen ñu wax duñ ko mën a comprendre. donc en plus de vraiment effort yi suñu force de défence et de sécurité yi di def je pense que il faut que ñun tamit ñun ñi nga xamante ni jaar nañ ci ñuy saafonteeg suñu rakk yi di dem ak ñoom di waxtaan ak ñoom di leen gën a xamal bu ñu demee li ñuy fekk foofu plutôt que di leen bàyyi ñuy jël risque yi bu ñu demee ba foofu di ko rëccu parce que ñu ci bëri nag bu ñu demee ba yegg dañ koy rëccu.